وجا خير الخلق للقديم جزاؤه مع جزاء génne sa gel ci sa pos raay say loxo takk sa masque nee na lu silwise la même bu dul woon jàngooro ji bu coronavirus amuloon ak dara parce que gel yooyu day rey microbe yi ci sa yaram di ko yor euh, dina tax dana yokk ak cet ci ci ci sa ci sa jëmm ci lépp bu ko defee nag euh, sëñ Mountakha ndigal yim ci joxe ndigal loo xamante ne nii murit yi dañ koy jëfee ndax murit yi moom sëriñ bi rek la ñuy déglu dañoo jël seen bopp àdduna ak alaxira jébbal ko sëriñ bi di ko déglu nag lu mu leen digal rek ñu def ko lu mu leen tere ñu bàyyi ko loolu la sëñ Muntaxa euh, joxe ndigal gis ngeen ko kër gi sëriñ bi démb la génnal boppam ci otoom wax ne bëggut a gis kenn ci kër gi ku takkul ku takkul masque euh, beneen bi ci des mu mu wax ne nañu sàmmoonteeg kër gi ku fiy dugg na takk masque ñu nekk ci biti ba ci jaaykat yi ci mbedd yi dafa dem ba ci ñoom euh, euh, jox benn dong ndigal ne na leen yóbbul ay masque ñu takk ko euh, dégg naa it ci làmmiñam mu ne ndigalul sëriñ bi moom du du wax nit sax ne demal ñu defal ma nangam moom mooy jóg lijjantil ko boppam comme loolu ndigalul sëriñ Muntaxa la moom mooy jóg taal otoom joxe ci ay ci kër gi te ba léegi ñi ngi koy sàmmonte néew na ngay gis ci kër gi ku takkul masque ak hygiène bi ak lu bare bëri jënd na tamit ay ay ay machines yu bëri yoo xam ne pour wàllu ceeb gi nit ñi di mën a raxasu euh, gel yi bëri na trop yaakaar nañ ne daal yàlla mën nañoo musal ci mbas mi ci ndigalul sëñ Muntaxa ñu màggal màggaluk sëñ Tuubaa gi am ci liñ ci daan am te a ji moom du ñu mën a faagaagal jërëjëf ndaw Sénégal euh, message message bi ma leen di lancé mooy mooy sëñ Tuubaa rek repère moom mooy sëñ Touba sëñ Touba akum njàngaleem mooy repère bu mët repère ndax yàlla dafa dogal ku tedd ki bàyyiwul dara bàyyiwul dara ci nu nit mën a def ba am euh, ngërëmul àdduna lim bëgg ci àdduna yëpp waaye nu mu mën a def tamit ba am ngërëmul yàlla sëñ bi bind bind na ay téere yuy yar ay xale di leen yaree nu ne ci lépp lu baax loo xam ne dara génn ko ci mbaax sëriñ bi bind na ci téere yu dul jeex bu ko defee nag li ma ci Euh, wax rek ne war jot na jot na sëkk nag ñu jël njàngaleem Serigne Touba fexe ba mu dugg ci fépp ci Sénégal parce que il faut que waa Sénégal xam ne Serigne Touba seenum Serigne Touba la Serigne Touba du mbirum murit wala tiijaan wala xaadir rek laay nag chrétien euh, ak yooyu déedéet Serigne Touba mbirum àdduna la projet bu mu indi luy defar àdduna la bu ko defee nag képp koo xamante ne ni Serigne Touba mel. te yàlla def ko ko neex na la rek mën ngaa jariñu ci projet boobu ndaw ñi nag moom bu ñu bëggee repère bu mot repère nañ dellu ci ku tedd ki rek akum njàngaleem loolu rek mooy repère bi amul leneen. jërëjëf waaw xaar ma gis abonné leen si Actubuzz pour bu dugalee beneen vidéo ngeen mën koo gis si nu mu gën gaawee.